ñu dellusi ci sëriñ Habib Sy mi nga xam ne dañoo dégg mu wax ne dañ ko seetaan ci jamonoy burtu bi mu wax fa ay kàddu yoo xamante ni dafa ñëwoon ci euh, fi ñuy defee burdu bi moom sax wax na la ko fa indi nee na sëriñ Mbay Abdou Aziz moo ko woone ko dama bëgg nga ñëw waxtaan ci burdu bi te ñëw ci jàkka ji nga ñëw fi wax def fi waxtaan mu ñëwoon fanam di waxtaan ak i taalibeem ak njabootam ca néegub yàlla ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahada mu yëkkati fa ay kàddu yoo xamante ni nag kàddu yooyu xaw na def lënt ci nit ñi yóbbe na nit ñi sax ak eh, ñaaw njortu ci loo xamante ni xamuñu ca dara kàddu yooyu nag ginnaaw ba mu yëkkatiwaat yeneen kàddu yuy leeral kàddu yooyu te fekk na ñoom jullit du def lu lu mu dégg rek ne tëll ne damm na jullit dafa am ku muy déglu jullit ku muy déglu mooy yàlla suñ borom tabaaraka wa taala jullit ku muy xaar mu ne ko nii la ñuy jëfe mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñun nga xam ne ñoo di ay murit ñu tegaat ci sëñ Tuubaa di ko déglu jàpp naa ko am kilifa nag doo gàgganti ko ci mbedd doo dégg ci mbedd alxuraan daa wax ne buñ leen indilee xabaar xabaar na ngeen vérifier xabaar ba ba xam ki leen ko indil wér na wala faasix la lu mu doon boo ko vérifié bu baax a baax di nga xam ne yonent bi salaa salaam tegal na ci ne bu ngeen déggatee kàddu goo xam ne nit dafa wax kàddu mu jaaxal leen te kàddu ga taxut mu jub ci yéen na ngeen ko taawil juróom-ñaar fukki taawil wala juróom-ñaari teeli téeméeri taawil te taawil yépp na doon yu rafet na ngeen wax ne kii de xañ na lii daf fee juum wala ngeen ne fii de xam na làmmañam a setut ni làmmañu saaliwu wala boo xañ kii lim ci jublu woon du lii na ngeen ko taawil na mu gën a rafete nee na bu ngeen ko taawilee nag ba mu taawilu ba nga xam ne wax ji daal nii la tëdde na ngeen ñaanal kooka bu fekkee ne wax ju ñaan jéggal na ngeen ñaanal ko njéggal yàlla defal ko ko bu wax joo xamante ni ju jar eh, eh, laabire la ngeen laabiranteeg moom waaye bu leen ko jàppe mukk wax ju ñaaw suñ tubaa waxaat ca nax ju ne am na benn waay boo xamante nii dafa romb benn waay di ko gaaruwaale di ko yekk lu mel ni xame di ko wax ba ñu toogoon na moom ne ko yow wala ñu ko romb ne ko doo tontu kii doo wax ak kii mu ne leen ah kii de waxuma nee na xam naa ne wax na ma waaye man lay waxal waaye damaa def wax fu ax mooy dama ko dégg ma xam ne man la ma jéggal ko jéggal loo xam ne topp ko dara nit ku baax noonu la war di def wax ja nag xam naa ne mujj na am borom ndax ñi ëpp ci ñi ko doon tontu wala ñi doon wax ci wax jooja ay taalibe la ñuy wuyoo taalibe Sëñ Tuubaa moom it bi muy leeralaat wax ji foofu la ko jëmee ndax gis na ni ñi ëpp ñu ko doon tontu foofu lañ ko tontu ca biir wax ja dafa waxoon ne yéen ñi nga xam ne yéenay njabootam ni ngeen xam ne ba ku nekk xam na kala man coolee bari rek waaye ku nekk xam na kala man waxaat ca biir kàddu yi ne borom caq day moyu borom baatu neen daal di yëkkatiwaat ca kàddu ne damay wax Abdou Aziz Mbaye ne leen xale yi nga xam ne dañ leen di roy fu ma taseeg ñoom dama leen di wax ne leen ne leen xaside Alaaji Maalik yi bu leen maslaa ak leneen di dugal waane ak bëgg lu neex ba di dugg ci leneen di leen jàng xaside Alaaji Maalik gi wax jooju nag ñun ñi jël ko ñenn ñi ŋawte ŋawtee ko ñenn ñi e, yóbbu ko fu nekk ba yàlla dogal ci bisu gàmm gi sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Baara Doli benn association bu muy def boo xam da ciy taxawu mag ñi ak di dundal kóllëre gi <coughs> relation yi mag ñi baax ñi amoon mu sol aw dàllam fii ànd ak ñenn ci njaboot gi dem cene ba siyaare fa jóge fa dem Tiwaawan xam naa jombut demaat na yeneen béréb waaye doon dem di leen ndokkeel ci bisu gàmm gi bi mu demee alaaji ab sëriñ Abdou sëriñ Habib si mu ne ko am na fi wax joo xamante nii dama ko doon waxtaan wax ja nag am nañu bari ñu ko jël ŋawte ŋawte waaye man sama diggante kër sëñ Touba ci ñi fa Alaaji Abdou si njëkk yóbbu ca laa bokk ba may yóbbu da maa jaaral kër sëñ Mor Mbay Siise ma jaar fekk fa suma turandoo bàyyi wan nañ ma ko sax siyaare naa ko ñu jun saafonte léegi nelaw na yàlla na ko yàlla jéggal yóbbu ko àjjana firdaws nee na beneen ba ca des bi mu fiy demaat Touba koo xamante wëllëreem la nee sax dem na fa ba jataayu ak sëñ Abdou Lahat jataayu nag sëñ Abdou Khadir jataayu nag sëriñ Souhaïbou yooyu yëpp muy wax alaaxa bu dox ak relation bu dox ci diggante bi te loola daf ko faa fekk du lu mu fa jëmbat du lu mu fa kii nee na bopp mujj sama wëllëre wu ma woone ma dama bëgg ànd ak yow dem ca kër sëriñ Saaliw nee na ma daan ne ko loolu ba maa lay yóbbu nee na ma téléphoné sëriñ Souhaïbou Cissé ne ko damay ñëw sëriñ Souhaïbou ne ko jëw nee na bu ma dikkee fekk naa sëriñ bi yaram wi xaw a sutante gis ñu koy siyaare di ko jox xaalis sax nee na xaalis buñ ko jox mu wàcc ci noonu may wax ñii de ku ragalut yàlla sa affaire dina baax yooyu kàddu moo ko rotal mu ne ko nag man foofa duma ko wax lu ñaaw ndax xàmme naa du ma wax loo xamante ni lu rafetul la ak lu ñaaw kon lu rafet rek lay wax fekk na sëñ Modou sax nee na mel na ni déggul woon kàdd yooyu ndax jàpp ma ne ñoom am nañ jot ak déglu kàddu yooyu loola mu wax ko ne ba muy jeexal mu ne man fii gàmm xam nañ ne damay woo ay murit ñu jóge mbuur buubu ngom boole ko abdou si ne leen dee leen jàng xasida maam borom Tuubaa dee leen ko boole sala allah leen ko jàngaale fii ngeen di àndandoo nee na dama koy def te yàlla rek laa koy seereel <coughs> kon bu nit ñi dikkee di wax wax ju ñaaw ji ak di ko xalaat man lu ñaaw du jóge ci man duma ko wax duma ko def kon daal di ñaan yàlla ne yàlla nañu yàlla musal ñi ñu topp ne danoo topp te gëmuñu loolu nag lu doy waar la wax ji nag boo ko dee jàngat xam ne wax dëgg yàlla moom man de jàngat gi li may njëkk wax sama kàddu wallaahi lisim ku ma sopp la ku ma ëmbal ak cofeel la ku ma yéene jàmm la koo xamante ni ni may ñaanal sama bopp di ko ñaanale ñu baax ñi may eh, topp ni laa koy ñaanale moom ndax gëm naa ne discours am bii du ren laa ko dégg ba tàyyi dégg naa du wax sax day nuyu kilifa yi Alaaji Abdou xar naa ne Beka Mbaye dem na fa yeneen waxtaan yu yàgg yoo xamante ni da ngay yëg ne ku am kilifa la koo xam ne nanguwut woon a feeñ lii ñëw en public nii xar naa ne jot gum ci jot ndigal la moo tax mu koy def waaye fa muy bokkatu moom ak fa muy làqatu daanaka ku dégg kàddoom sax nga gën a yomb ci nga gis ko wala nga taseeg dëgg yàlla. Euh, dañuy wax rek ne wax la joo xamante ni seytaane moom moo du bàyyi kenn waaye euh, ku xool moom ni ci ñim ak dëggam ak Sénégal lim ko jaral ak li ko euh, liberté jaral ak li dëgg jaral da yàlla jàpp naa ne kàddu yi muy jég di ko yëkkati di ko janloog buur di ko wax di ko buur bu am kàttan am doole te seetu ci kenn loolu jàpp naa ne kon doo ragal keneen mu tax nit kii tamit du tef wax ju jub jubul wax jee xaw a dëng ci moom mu ne man lañ ci jublu déedéet loolu nit ku baax day wax bu ñu ko waxee bu déggee wax ju rafet wax day wax ne de man wax nu ma ah man kay lii kenn ñëwu ma wax joo xamante ni juunu na rek suñ ko waxee yow nga moomale sa bopp ne man lañ ko wax loolu it xam-xam du xalaat bu gudd tamit wax da ngay seet la gën a rafet nga di ko di ko moomale sa bopp waaye doo jël wax joo xamante ni ko ko moom dinaa wax ji nag moo ko waxoon firil na ko boppam xaj na dëgg la bokk na ci Sëñ Tuubaa li muy jàngale ni seexu tarbiya wala seexu tarbiya buy wax balaaxa bi war a am ci waxam warul wax seexu tarbiya warul wax ba noppi ñuy laaj lan la bëggoon a waxoon la li mu wax loolu sëñ Tuubaa da koy jàngale toujours ci kii kon nag moom ñu ngi koy ñaanal ñii ci doon wax wax joo xamante ni kii tamit euh, ñu ngi leen di sàkkul euh, euh, njëggal ndax wax ja ginnaaw firi na ko ne loolu du mbiram jëmalewu ko woon foofa kon loolu ñu ko jëmale woon fu ko jëmale wut te wax ji yaakaar naa kenn war a koo gën a dégg borom. kenn waru koo xanam borom nii la ko firee ni mu ko firee nag wax dëgg yàlla noonu lañ ko war a jàppee waaw beneen bi ma ci tegu nag euh, ñoom ñii la Abdul Wudood waxoon ne ñoom ñooma ñoom wàllu yi ñoom la ñun ñun la euh, wax na ci biir ba wax ca ñoo xamante ni man mën naa caa moomale sama taalib yi la ci moom ñi nu topp te gëmuñu kon nañ leen topp te yàlla rek tax ñuy xool ñoom fan lan àgg nan nan leen jëm ñu àndandoog ñoom waaye bañ a nekk di ruube ci biir loolu du suñu waru gar du suñu mbir ku bëgg a defaru da ngay xool luy defar nga nekk ca euh, ñu ngi yemale fii kàddu gi di ñaan yàlla nanu yàlla may mujj gu rafet te may nu wéeru yaram te nu euh,